daan wax mhm. mu nekk loo xam ne tey Abi Dieye mii bu lay xool sax xolam xolam xam naa ni dina xaw a euh, dellu si période yooyu champ boo xam ne koom-koomu doomu aadama laa ko mën waxee donc muy secteur social bi mu mujj dem jàng SNEPS rek moo amoon donc léegi foofu recrutement bi niveau troisième BEPC la woon ou BFM suñu bëggee waaw léegi léegi nag en concomitamment ñi amoon bac di def dañuy def benn année fii nii biir SNEPS après génn dem à l'extérieur voilà boobu voilà INSEPS bi am la bi INSEPS amee fekk na man wax dëgg yàlla bugguma woon bugguma woon maanaam si vip Kennedy VIP-info.net VIPinfo.net VIPinfo.net VIPinfo.net Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, fait divers.